asalaamaaleykum waa Polyglot House ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen dalalaat rek ci kër gi fas yéene ñëwaat ak yéen ci beneen leçon tey nag leçon bi ñu leen indil mooy las professiones las profesiones boo ko déggee ci espagnol mooy maanaam euh, sa profession sa liggéey maanaam xeetu liggéey mën naa doon. Eh, nga doon dawalkatu taxi man ngaa doon nga doon sapeur pompier mën naa doon docteur mën naa doon yeneen xeet baykat wala yeneen yu demee noonu tey dinañ leen ci indil ay quelques yoo xam ne eh, li ñu koy jëfandikoo bëri nañ tey bu nañ ko indilee dinañ leen ko indil wax leen ko nan lañ koy waxee ci espagnol nan lañ koy waxee ci wolof ba pare tamit boole ko ak image bu ko defee mu gën a leer si sa bopp nga xam ne boo ko Ah, gisatee wala boo ko déggee nit wax ko nga mën ko fàttaliku bu baax a baax waaye du ñu yem foofu rek dinañ ko dugal ci biiri phrase tamit tey nga xam ne tey yow bu fekkee ne dañ la laaj lan ngay liggéeyee wala nga dégg nit wax la lu muy liggéey dugal ko ci phrase di nga xam maanaam nan ngay toppalantee baat yi ba nga xam ne boo ko waxee nit dina xam li ngay wax wala boo bu ko nit waxee nga dégg ko nga xam ne ah kii kat lii lay wax ndax jàngoon nga kon tey leçon bi ci loolu lay aju maanaam las professiones liggéey yi ah, bu ko defee incha allah ñu teewlu rek ñu dugg ci liggéey bi waaye balaa boobu rek dañ leen di fàttale tamit ne bu fekkee ne jàng espagnol yitteel na la numéro baa ngi noonu ci écran bi bul taayal boo ñu envoyé message rek whatsapp wala nga wooñu incha allah dinañu ci leeral bu baax a baax nan la inscription yi demee ak mensualité ak cours yi tamit nan lañ koy organiser waaw baat bi ci njëkk mooy docteur docteur na ko el docteur docteur bi el docteur bi wolof tamit docteur la koy wax wala fajkat bi waaye bu ñu waxee ci wolof dinañ xam ne kii faj moo tax ñu wax kon espagnol docteur lay wax docteur. Tengo cita con el doctor. Tengo cita mooy loo xam ne comme rendez wu la bu dee wàllum faj yooyu mooy ab ab rendez-vous comme ñu ne la bis sàngam heure sàngam ñëwal bu ko defee ñu xool sa yaram walay demee noonu bu jëm ci wàllum docteur comme boo nee tengo sita con el doctor mooy maanaam dama am rendez-vous ak docteur bi cita cita mooy rendez-vous tengo cita con el dama am rendez ak docteur bi taksista taksista taxista boo xoolee baat bi da ci gis taksi kon mooy dawalkatu taxi bi taxista moo tax ñu jël baat bi nga xam ne mooy taxi taxi ci wàllu bopp mooy oto bi ki koy dawal mooy taxista taxista dawalkatu taksi taksista el taxista conoce muy bien la ciudad. El taxista conoce muy bien la ciudad. El taxista maanaam dawalkatu taxi bi conoce conoce mooy conocer mooy verbo mooy xam xam wala miin dara maanaam xam ci fii nii ci wàllum dëkk bi mooy miin xam dëkk bi el taxista conoce muy bien la ciudad la ciudad mooy dëkk bi el taxista conoce muy bien la ciudad dawalkatu taxi bi miin na dëkk bi bu baax maanaam daanaka bërëb boo bëgg a dem xam na fa miin na ko ko xam na bu baax a baax dëkk bi loolu day baax ci taxi euh, kuy dawal taxi moo tax ñu ne el taxista conoce muy bien la ciudad chef chef chef parfois nga dégg ñu naan chef chef waaye chef mooy baat bi maanaam baatu français la maanaam mooy ki nga xam ne mooy toggukat bi comme boo demee ci restaurant wala dara loo xam ne foofu wàllum lekk fay kii ak yooyu ki nga xam ne moom moom moo jiite togg bi maanaam moo jiite toggkat yi xam ne day am sous chef am noonu yëpp assistant beeg yooyu mais ki nga xam ne mooy chef bi maam dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moom mooy toggkat bu mag bi xam mooy togg euh, léegi espagnol amul baat bi carrément cocinero mooy toggukat rek espagnol mën na wax loolu cocinero ku nekk mën na doon cochinelle waaye pour nga doon chef daa am ay njàng mu ci war yooyu noonu ba nga xam ne day doon titre la daal moo tax ñu koy wax chef même anglais chef lay wax. français chef lay wax baatu français la espagnol chef lay wax yeneen langue yu bëri chef la ñuy wax kon mooy toggukat bi. La cocina del chef es super deliciosa. La cocina del chef es super deliciosa. la cocina del chef maanaam togguk chef bi togguk toggukat bi waaye day doon xaw répété waaye mën nañ ne toggukat bi ak a neex togg waaye fii liñ ci jublu mooy chef bi nag bokkul comme mu naan chef comme patron wala yu demee noonu non non chef toggukat la cocina del chef es super deliciosa deliciosa deliciosa delicioso bu dee baat boo xam ne maanaam dañ koy góoral fii cocina la ñu wax la cocina moo tax ñu ne deliciosa lan moo deliciosa la cocina togguk ceeb bi moo tax mais mën naa doon delicioso mooy loo xam ne dafa neex lool délicieux la cocina del chef est super deliciosa togguk chef bi wala toggkat bi ak a neex togg bombero bombero bombero mooy sapeur bi bombero bul dégg bombeero rek jàpp ne wàllum bomb la ak demee noonu nag <laughs> bombeero mooy ki nga xam ne sapeur pompier la maanaam mooy liggéey si sapeur yi ñoom sapeur bombeero lañ koy woowee los bombeeros sapeur pompier yi maanaam ñooy dem ci wàllum fay làkk nit kuy labak eh, daanaka li ñuy naan maan daal li ñu naan sauver ou périr li ñu lay xetali ci nit bëri na daal ñoo ñu ñooy bomberos los bomberos bu dee benn nit bombero la ñuy wax bu dee ñoom ñu bëri bomberos Demba fue salvado por un bombero. Demba fue salvado por un bombero. Demba ab sapeur moo ko xettali peut être Demba mu ngi doon lap wala mu ngi nekkoon ci ak tàkk wala situation boo xam ne daanaka daal moom mooy loolu waaye sapeur bi ñëw dugg xettali ko maanaam eh, sauver viom moo tax ñu ne Demba fue salvado salbaar mooy xettali dara xettali xettali salvar a alguien Getalinit, salvar, salvar, salvado por un bombero. Demba fue salvado por un bombero. Demba ab por moo Getali. Oficial de policía. Oficial de policía. Oficial de policía mooy takk der maanaam ab policier ñu koy faral di di di waxee bien vrai que policier baatu français la waaye daanaka moom la ñuy wax ci ci wolof takk der waaye policier la ñuy ëpp lu ñuy faral di wax ci daanaka langue wolof bi nga xam ne mooy loolu sama genre gi moom la ñuy làkk oficial de policia oficial de policia kon la policia mooy maanaam euh, kii bi maanaam nu mu tudd sax police ci boppam maanaam li ko tëgg organisation bi ci boppam waaye officiel de policia mooy ki nga xam ne day liggéey ci biir officiel de policia El oficial de policía patrulla las calles. El oficial de policía patrulla las calles. Patrouillard mooy comme ñuy euh, ni policiers yi di def parfois dugg ci ruq-ruqaat yeeg yooyu yor seen oto wala moto wala comme kuy garder rek di dugg di nemmeeku di xool ndax am na lu fa nekk ndax nit ñaa ngi ci jàmm wala yu demee noonu daal policier bi noonu lay def tamit dugg ci mbedd yi xool. dox bu gisee loo xam ne du yoon wala gis na loo xam ne war na cee mën a euh, àddu mu daal di koy def moo tax mu ne el oficial de policía patrulla las calles patrulla boo ko déggee mooy comme di def noonu baram pour mën a gis loo xam ne peut-être mën naa gaañ kenn wala mën naa indi loraange ñun ñu ñu àddu ci waaw patrulla dañuy yor seen oto di daw ndànk wala ñu yor seen tànk sax di dox di dox di xool buñ gisee loo xam ne lu loolu ñu ñu ñu taxaw lijjanti ko el police el oficial de policía patrulla las calles takk der gaa ngi saytu mbedd yi juez juez juez mooy attekat bi juez el juez attekat bi bu dee góor wala jigéen moom la ñuy wax juez la wax xam el juez atekat bi juez ho juez El juez se encarga de juzgar a las personas. El juez se encarga de juzgar a las personas. El juez se encarga de juzgar a las personas. Juzgar, bojole juez a juzgar. dañoo xaw a nuroo xuwees parce que xuwees moom mooy xusgaar xusgaar mooy nga juger nga àtte xam nga si liñ la jox la ak lii kii wax lii kii wax la après yow selon li nga jàng ci yoon ak yooyu nga daal di àtte ak preuve yi nga am ak yooyu xusgaar el juez se encarga se encarga mooy comme moom lañ féetale moom mooy encarga euh, euh, moom moom mooy féetewoo maanaam wàll woowu liñ def police dina dem def enquete ak yëpp avocat yi ñëw def seen i défense yëpp ne ba pare nag ñëpp dajale après moom mu daal di jël jël décision el juez se encarga de juzgar a las personas las personas nit ñi maanaam nit ñi nga xam ne yóbbu nañu foofu tuumaal nañ leen woon soit ñu coupable wala coupable ñu loolu lépp après si juge bi lay dépendre agricultor agricultor agricultor agriculteur mooy baykat agriculteur baykat mooy gisee noonu ci photo bi gis nga machine bi tracteur bi fourchette geeg euh, fruits yi maanaam euh, ak ak ak mala yi yëpp xam daanaka day day ànd ci wàllum mbay moo tax ñu boole ko noonu agriculteur baykat bi El agricultor está arando su campo. El agricultor está arando su campo. El agricultor está arando su campo. Arando su campo mooy comme euh, balaa ñuy ji euh, comme suuf si xaw wow yooyu comme yaakaar naa deqi la ko wolof di wax maanaam bu bu si tracteur bi di jaar noonu sulli ko sulli lépp sulli ba suuf si euh, kiiwaat nooyaat xam nga bu defee ngay neex a ji. loolu mooy arrendar su campo arrendar su campo mooy comme balaa ñuy kii ak yooyu déqi yaakaar naa déqi boo ma juumul ci wolof noonu lañ koy wax sam xam-xam ci wàllum mbay daa bëriwul moo tax mais yaakaar naa loolu la maanaam daal boo gisee tracteur bi di jaar di sul sulleeg yooyu noonu loolu mooy arrendar su campo el agricultor está arrendando su campo baykat baa ngi déqi toolam bi di waajal par exemple pour pour jéeg yu demee noonu waaw sama gars yi mu ngi noonu xam naa ne bu fekkee ne am na yeneen yoo xam ne euh, di ngeen koy faral di utiliser par exemple yeneen xeetu liggéey wala yu demee noonu te gisu leen ko ci euh, video bi bu ngeen ñu defee ci commentaire rek incha allah beneen vidéo bi ñëw dinañ ci bàyyi xel bu ko defee ñu euh, indiwaat yeneen à chaque fois rek dañ leen di déglu bu ko defee li ngeen xam ne yéen moom moom moom ngeen bëgg ñu nekk ci euh, di di ci di ci di ci di ci def ay jéego saa su ne moo tax commentaire yi da ciy baax bu fekkee abone woogoon nga abone tamit di partager vidéo yi bu ko defee incha allah rek euh, luñ dugalati rek nga mën cee jot comme ni ko nit ñi di teewloo bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal di leen euh, delloo sant rek comme niñ koy defee saa su ne xam ne. Euh, bu du woon yéen tey duñ nekk fii di defar ay vidéo ak yooyu moo tax à chaque fois rek dañuy jël temps tamit di leen ci jaajëfal bu baax a baax euh, di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.